bismillahi irrahmani irrahim an sayidina abi bakrin siddiqi radiallahu taala anhu jële nañ ci suñu sang àndandooru yonentu sallallahu alayhi wa sallam abubakar siddiq qaala mu ne yaa ayyuha nnaasu ee yéen nit ñi innakum la taqra'uuna haadihi l aayata naka yéen da ngeen jàng laaye jile yaa ayyuha alladina aamanu ey yéen ñi gëm yàlla aleykum wa anfusakum toppatoo leen seeni bopp laa yadurrukum du leen mën a lor man dalla ku réer na ida htadaytum dem jub ngeen yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm yàlla aleykum toppatoo leen anfusakum seen bopp laa yadurrukum du leen lor man dalla ku réer na ida dem jub ngeen wa inni wante man sami'tu dégg naa rasulallahi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu yaqulu muy wax inna naasa naka nit ñi ida suñ gisee tooñkat falam yaxudu ala yadayhi te jàppuñu ci loxom aw shakka an yacummahum llahu bi aqaabin min soo moytuwul yàlla boole leen mbugal ñoom ñëpp aw shakka dana jamtulu aw shakka xaw na aw shakka lu probable la an yacummahum matala leen laahu yàlla bi aqaabin ci mbugal minhu bu tukkee ci moom rawaahu abu daawud wa tirmidi wa nasaa'i ñoom ñii ñëpp solo nañ hadis bi bi asanida saxiha ci isnaad yu wér seydna abubakar li muy jàngale fii mooy ni mu jise nit ñi di jàngee laaye ji lim gis nit ñi déggee ko ci laaye ji laaye ji doxut loolu maanaam toppatool sa bopp rek keneen kuy def leneen nit affaire am la du la lor déedéet alquran mooy firi alquran xadis di firi alquran na nga toppatoo sa bopp waaye xamal ne say mbokk it lëf lañ ci sa bopp nga def la nga war a def toppatoo sa bopp firiwul ne da ngay jaamu yàlla rek te doo digle lu baax soo ko waree digle doo tere lu bon soo ko waree tere ndax loolu sax ci toppatoo sa bopp la ndax dees la koo digal kon nag soo gisee tooñkat nga mën a jàpp ci loxoom jàppal ci loxoom nga mën koo digal digal ko soo demee ba mënoo digle mënoo tere mënoo def dara yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na li gën a tuuti mooy naqarlu ci xol yal na yàlla may ñu yàlla yaa rabbi sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim